sama maam nag moom day doomu Sëñ Fallu di caatum bu jigéen waajur bu jigéen tudd Soxna Cooga mu nekk fi jiite jiite ay taalibeem nekk fi tam nekk fi ay kilifaam nekk fi tam ak njabootam nekk fi tam ak nekk fi sëñam muy Sëñ Amsa bu Sëñ Ablaat nekkal ko fi nekk fi tam si abo nekk fa njaboot Sëñ Fall gi yëpp fii nag nekk na fekk daayira yu bari yoo xam ni moom moom mi lañ jokk am na ñu ne nii Touba am na ñu nekk Dakar am na ñu nekk euh, Kaolack am na ñu ne Thiès am na ñu nekk euh, France am na ñu nekk Allemagne am na ñu nekk euh, États-Unis am na ñu nekk itali ñooñu ñëpp nag benn daay lañ tudd ko daay man ñu xul noonu ni yàlla doon nag ñun ñu nekk njiit li maanaam ñu ànd liggéey bu rafet kon tey yéen waa Dakar Actu boo leen ñëwee si kër Sëñ ñëw si njaboot Sëñ Tuubaa gi rawet na moom mii di sama kon ñoo ngeen fi war a ñëw moom nag bëgg doon lu ab taalibe ndax euh, yoonu ko Sëñ lu mu baaxoo mooy ñoom seen kilifa am ki fi nekk Sëñ Fallu muy Sëñ Aboo kooku tim ay kilifa am mooy Sëñ Seex Si Mataa bi nekk Sëñ kon ñoom amuñu lu dul Sëñ Tuubaa amuñu lu dul njabootu Sëñ Tuubaa gi kon ñun ñi nga xam ne dañuy ay taalibe nekk si kër gi ñun seen ginnaam dong lañu lañu mën a topp day doomu Sëñ Fallu te Sëñ Fallu nag ku nekk xam na nu mel si réew mi ku nekk xam na ne fu mu féetee sëñ Tuubaa ndax màggal gi tey bu accès si bu accès tey ba ñëpp di fi ñëw sëñ Fallu ndax ku nekk fa fa nekk la nga daan màggal waaye sëñ Fallu si yëmandeem ak mbaaxam ak bëgg ñëpp jëriñu moo wootee màggal gi si tubaa gi kon nag ñoom màggal gi seen cër ndax seen waajur moo ko woote si Tuubaa gi màggal gi nag bisu sëñ Tuubaa la mooy bisu bi sant boroomam di si ñaan di woo woo si taalibe yëpp ne képp koo xam ne sa mbëgg sa mbëgg la ñëw sant na ma sama borom ñoom na si ndigal loo lañ nekk bëgg a santalee seen maam mbégam maam sant na ko borom si màggal gi moo ni ko suñu caa diglee ginaar ba gileem moom képp laay kattan mu ngi ko si def lu mën ak lu mënul mu ngi ko si def ndax fépp la mbooloo jógee di ñëw si fépp la média di jógee di ñëw si kii fépp la kilifa di jógee di ñëw fii ngir lan ma màggal gi di ko siyaar fépp fa dem benn wàccaa gi la maam jàng xasida sellal ko ak ak benn gan yi ndax ni ko boom bëggee noonu noonu noonu la si nekkee moom tam noonu la si nekkee génn ko. soxna si nag dafa nekk soxna soo xam ne si suñu diggee ak moom dafa yàgg mu nekk nit koo xam ne nii ku baax la soxna soo xam ne nii bu joboote bu yar ay taalibeem si taxawal yoonu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ci waajuram sëñ Fallou ñun dañuy ñaan yàlla bàyyi ko fii suñu kanam mu am wér ak wérale Ah, di ña soññ taalibe yi rawatina taalibe yi nekk Kaolack di leen soññ ñu booloo nekk Kaolack taxawal taxawal Cheikh Ahmadou Khadim Rassoul si ginnaaw soxna si. dafay baax ci wàllu communication ñu xam kuy soxna maam maam Awa Bousso di caat si Sëñ Fàllu nekk nit koo xam ne kii ku ñu ràll na ci yoonu murit eh, léegi la ko bada wax ci liggéey bi muy liggéey sellal ak tout tànk yi mu nekk royukaay si suñuy soxna suñuy doom. ci képp ko ya ki kii yaakaarul touba la tek ëlëk mu nekkoon ko xam ne na ci taxaway bo xam ne bu ràññeeku la waaw da ci jëf-jëf yi yoo xam ne yu yéeme la ba lool yi ñabo euh, gi nga xam mom la fi bàyyi euh, lool la ñuy wëyel ta ci lool lañu sax lool lañu sam ba légui euh mom nak nekkon borom jikko jo xam euh, ku rafet jikko la rafet xol ëmbal ñepp jamm waye it euh, digam ak mbokk yi ñi mu bokal diine ji ak ñi nga xamne ñom la bokal umma islami bi euh diggante yu rax ratax yi nga xamne doxon na seen diggante te lepp sam diine ak sam ndonal Cheikh Amadou Khadim taxon mu diko dox muy relation yo xamne yo am am solo la yo xamne sekkon nako keur diine yi ba tax lola mo waral bu bis bi ñëwatee euh, fu këru diina nek ci Sénégal ci umma islamik bi dañuy tew ngir euh, fataliku bis bu sel bu mag bi yaakaar lool mom taxaway bu maga mag la ci am bo xam ne buñ ko bëggono faram patte dana jël temps lool ndax euh yoo yo ne soqi nako ci ba bis bi mëna ak taxaway yo xam def na ci muy taxaway yu ràññiku ta di bim koy def ci jamono joju mu nek jamono jo xamne ju metti la dama jo xamne ju tar la ci mën taxawal mbir mu jël engagement bu meg bu mel nonu ci jamono ju mel euh ay borom xam-xam nek fi ay njiitu dina nek fi mu jël engagement ngir wote nit ñepp maase dajé fi ngir santales Cheikh Ahmadul Khadim eh, bisib bi nga xamne lu mu doon bëggoon ci suñu borom subhanahu wa taala ci lako amé ma wax ne kep ko xamne ne sama mbeg sa mbeg la bu ñewete nak ma ci santor suñu borom subhanahu wa taala kon mel ne lam ci doon wut muy ngeureumal serigne bi amna kote ko ci. wax na ne sax bu ëllëgee bu ñu démé ca aljana bis amatu fa bu bis mi ñewé wa aljana yépp doon yegne ne bisub Seex Amadu Xadim ba delsina bis bi li ci dajé lépp ku ko sellal ta defe ko niko borom bëggé man nga ci dajé ngeureum suñu borom subhanahu wa taala kon ñu bañ koo def bis boo xam ne dañ fi daje ngir mbuumbaay mi daje fi ngir ñeneen wala ñu koy waajale neneen waaye nañ ko waajale laabal suñuy xol setal ko ba ku ñu gis melokaan wi nga xam ne ñoo ngi koy jëlee ci di ko génne ci média média yi ak yu demee noonu melokaan woow yi ñu fexe ba mu dëppoog ni nga xam ne noonu la ko lislaam bëggee